أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu xam ngeen ne ñu ngi ci weeru rabiul awwal tollu tey ci fukki fan yi ak ak ñaata ak ñaar muy guddi gi nga xam ne ci la ñuy wax ne lenn ci boroom xam-xam yi nga xam ne ñoom ñoo ëpp ñu ne ci la yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam gane àdduna doonte ne guddi gi wuute def ci am loolu moo tax ñu tey tànnoon benn tomb ne nañ ko fàttalante diggante timis ak gée benn jikko wala benn melokaan ci melokaanu yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam te mooy arrahma al muhammadiya mooy yonent alayhi salaatu wassalaam yërmande gi nga xam ne moom la ëmbaloon xeet wi xam ngeen ne tey kuy xool xeetu lislaam di nga gis ne bu fi yërmande jeexul it wàññeeku na wàññeeku na ci mbooloo yi wàññeeku ci benn benn doomu aadama yi wàññeeku ci biir kër yi wàññeeku ci daje yi wàññeeku fu baree baree bari looloo tax ngeen gis yenn melokaan yi tey ci jullit yi ak yenn coono coono yi su ko defee léeg-léeg ci ay xew-xew yu mel nii dina baax ñu fàttalante lenn rek ci ay jikkoom wala ci ay melokaanam moom yonent yàlla Muhammad au lieu que ñun ñu koy defee ni ko ñeneen ñi di defee li may faral di wax mooy xew-xewu lislaam yi tey fi ci àddina bi toll mooy lekk rek xew-xew yépp lekk rek bu tabaski jotee kenn du xam philosophie tabaski ñun jullit ñi lan la ñuy jëlee ci tabaski lekk su korite jotee kenn du xool philosophie korite luñ ciy jëlee lekk naka noonu gàmmu naka noonu tamxarit naka noonu yépp lekk rek programme jullit yëpp tey lekk la rek ngénte sax lekk rek dañoo dem ba xikma li taxoon yàlla di ñu sant mbir yi du lenn lu dul lekk rek su ko defee lekk taxuloon mbir yi jóg noos taxuloon mbir yi jóg waaye dund diine moo taxoon yàlla subhanahu wa taala di ñu sant li mu ñu sant inna rahmatal muhammadiya allati awdaaha allahu taala qalba nabiyihi mu ne yërmande gi nga xam ne moom la yàlla subhanahu wa taala def ci xolu yonent bi moom mi nga xam ne tànn téef la yàlla ko tànn moom mi nga xam ne xaritu yàlla la yàlla ko tànn ci jaam ñi jaam ñi li ñuy baree baree bari yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam la ci tànn def ko soppeem yàlla def ci moom yërmande amma li saairil xalq wa rahmatun xaassa ñaari yërmande la yàlla def ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam yërmande goo xam ne bu njëkk bi mooy ñépp a ko bokk nit ñi ak ñi dul nit ñëpp la ko yonent bi ëmbal ñaareelu yërmande gi mooy jullit ñi dong dong dong la ko yonent bi jagleel ñaari yërmande la yàlla def ci yonent bi benn bi ñëpp la ko boole mbindeef yëpp nit ak lu dul nit beneen bi nag jullit ñi kese kese kese yërmande googu nga xam ne yàlla subhanahu wa taala moom la wax ci alquran ne ko wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yow muhammad dama laa yónni yónniwuma la lu dul nga nekk yërmande pour kan lil alamin al alam monde humanité bi yépp yàlla daa yónni yonent bi pour mu nekk benn gaalu sauvetage pour pour ñëpp texe kooku mooy rahma amma pour ñëpp la nit ak jinneeg rab ak yéeféer jullit ñëpp ci bokk wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin wa rahmatan xaasa yërmande goo xam ne nag yàlla daf koo jagleel jullit yi rek moo tax mu ne ko ci suratu tawba bil muminina raufun rahim dama la yónni pour ñi gëm yàlla nga nekk ci ñoom ku lewet ku ñeewent jàngeen ci saar boobu yàlla mu ne laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum waaye bil muminina yàlla mu ne am na yonent bu dikk ci yéen yonent boo xam ne jógewul kaw asamaan génnewul ci biir suuf génnewul biir géej du jinne du malaayika min anfusikum ci yéen la bokk nit la comme yéen wulida kama wulidal bashar dafa juddoo ni nit ñi juddoo léeg-léeg nga dégg fii léeg-léeg nga dégg ci réew mi ñuy jaay benn kilifa ñu ne bokkul ci aadama bi wala moom moom du nit wallahi du nit yéen yéen a koy teg nit rek wala ngeen koy yorom nit mais passé na foofu léeg-léeg nga dégg wax yu gën a doy waar yooyu waaye xoolal yàlla bi muy wax yonent bi dafa ne rasulun min anfusikum yonent boo xam ne ci yéen la bàyyeekoo min anfusikum dafa juddoo ni nit di juddoo yonent yàlla Muhammad dafa am ndey ak baay ñu ëmb ko comme ni ñuy ëmbee nit ñi yaayam Amina ëmb ko bi mu amee ñaari weer ci biiru yaayam pàppam gaañu ñu ëmb ko yaayam daj li jigéen ji ëmb di daj moom mu daj li liir di daj ci biiru yaayam judd jot mu judd ni nit ñi juddoo wulida kama wulida al bashar yàlla plongé wu ko kaw asamaan def ko avion dugal ko ci ne ko brr mu ñëw dégg nga fii koo xam ne dañu ne bi muy judd dafa sol yére dégg nga loolu dégg nga sax ñu ne koo xam ne bi muy judd turam dañ ko def ci benn lettre kaste ko moo tax ñu tuddee ko kaste ci arab nu mu tudd ah yaa ko wax de bëgguma ko wax man ndax damay enregistré ñu tuddee ko al gis nga ne dafay indaale turam indaale ko fii doo sol yére ñu dugal ko ci poche ñu ubbi ñu tuddee ko noonu xoolal loolu kan mooy judd sol yére yeneen bi dafa judd ni ñuy juddoo liir yi ni ñu juddoo ndeysaan kere bu mu juddoo ci Amina ñu ne ma ko maamam dafa ñëw gàddu ko daa di wër ak moom kaaba gi juróom-ñaari yoon daan ne sammaytuhu muhammadan tuddee naa ko muhammad ñu ne ko lu tax mu ne li yakuna mahmudan bayna samai wal ard ngir mu nekk ku ñu gërëm diggante asamaan ak suuf dafa judd comme ni nit ñi juddoo wa aasa kama aasa al basar mu dund ni nit ñi dunde baayam gaañu ke ñu nàmpale ji ko ca àll mu sàmm feebar takk soxna am ak moom ay doom ay doomam dee mu ay mu am ay jafe-jafe ni nit ñi di amee jafe-jafe mu daan toog sax yenn saa yi weer cin du tàkk këram weeru yàlla cin du tàkk këru muhammad mu aasa kama aasal bashar ni nit ñi di amee jafe-jafe ay problème yonent bi noonu la dundee di taqale léeg-léeg sax mu tëdd guddi di xiif munta nelaw mu génn di dox ci mbedd yi wa aasa kama aasal bashar ni nit ñi dundee feebar yaa ngeen ko dafay dafay feebar muy deele ay doomam dee ñu koy jaale si ah gis nga ni nit ñi dundee nag noonu la yonent yàlla muhammad dundee lépp lu dal nit ñi dal na ko mu daan liggéey comme nit ñi nit ñi liggéey xoolal ñun tey nga gis ñoo xam ne du ñu liggéey ñoo xam ne dañ naan ñoom nangam ñoo xam ne dañ naan nangam bu dee sax dañ leen di nëbbi nit ñi te yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam génn àdduna ni nit ñi génnee àdduna encore feebar ba ci feebar bi ci la génn àdduna ñu ñëw sang ko ci kaw yére yi mu sol sang ko yooyu la yére ak yiñ ci dolli bal dañ kaa suul comme ni ñuy suule nit ñi ci suuf si lañ ko suul kenn kenn dugalu ko ci biiru or kenn dugalu ko ci biir jama kenn dugalu ko ci biiru xaalis ci suuf si lañ ko suul ci suuf si kon dafa judd comme nit ñi ni ñu juddee mu dund nit ñi ni ñuy dundee mu faatu comme ni nit ñi faatoo waaye nag xayrun min al bashar moo gën mbindeef yépp nag ñépp nag moo leen gën maa xalaqa al ilahu wala tura basharan yura ka muhammadin bayna al wara yàlla bindul mbindeef mu tollook muhammad ñi dem alaxira fekk ñu fa ku mel ni muhammad ñi fi des ku mel ni muhammad dootu leen fekki sallallahu alayhi wa sallam yàlla mu ne moom ci jullit ñi yërmande la ci ñoom bil muminina rauf walil rahmati fi l qalbi mazahirun fi l xayaat nee na yërmande nekk na melokaan boo xam ne day feeñ ci xol dafa am ay phénomène yuy feeñ ci nit wala ci benn mbindeef ñu ne kii ku am yërmande la wala kiiku soxor la tatajalla fiha wa haadihi baadu mazahir tilka arrahma almuhammadiya mu ne lenn dañ la indi lenn rek lu ndaw loo xam ne dinga ci mën a teg sa baaraam jéem koo jël dund ko tàmbalee ko ci guddi tey gi ak li nekk ci sa kanam pour nga jéem a roy yontu yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ci yërmande gi mu amoon bokk na ci loolu lamma kazabahu qawmuhu bi ko ay nite mi weddee yemuñ ci weddiku waaye dañ kaa jàpp duma ko dóor ko ay xeer ba deret ji sangu sallallahu alayhi wa sallam jibril daal di koy dikke ñëw ci moom ne ko inna allah taala qad samia qawla qawmika yàlla dégg na sa nit ñi li ñu wax jëme ko ci yow ak delloo gi ñu delloo liñ la yónni ak jëf ju ñaaw jiñ la def man jibril alayhi salaam yàlla moo ma jox ndigal nee na loo bëgg rek ma defal la ko léegi boo bëgg rek ma def ko bal sax ñaari montagne yu tiiñ dëkk bi ñaari doj yi soo ma joxee ndigal léegi ma jël leen ñoom ñaar këpp leen ko ci dëkk bi ñépp dee mër nii bi maa siita sant ma lu la neex boo bëggee rek ma këpp léegi montagne bi seen kaw ndeysaan loolu bu ñu ko waxoon tey benn waay boo xam ne dañ laa dóor ba sa yaram bi yëpp di naaj foo xool gis deret ku am doole ñëw ne la kan moo la def nii nga ni ko kii mu ne loo bëgg ma def loo koy wax xool leen yonti yàlla Muhammad ak yonti yàlla Moussa Moussa bi ko Qaaruuna tooñee mu ñaan yàlla yàlla mu ne ko waxal loo bëgg ma def mu ne yàlla na ko suuf si wann moo ak lu mu am lépp suuf si tàmbali di wann waa ji waa ji yuuxu suuf si di ko wann waa ji yuuxu suuf si di ko wann waa ji yuuxu ba ci put bi mu naan ko ay Moussa waa ngi jéggalu Moussa ne suuf si wann ko suuf si wann Moussa Qaaruna ba mu jeex takk yàlla mu ne Moussa yaa soxor Moussa mu ne yàlla lu ma def mu ne kii di la jéggalu doo ko jéggal xam nga lu tax baaloo ko Moussa ne ko am mu ne ko bindoo ko boo ko bindoon yërëm ko xool yontu yàlla Muhammad moom nuruwul loolu xoolal nu dane woon rabbi laa tazar alal ard min al kafirina dayyaaran innaka in tazarhum yudillu ibadak te wala yalidu illa fajiran kafaran xoole muhammad moom bi ko jibril waxee loolu dane bàyyi leen amaana ñoom buñ ma weddee dinañ jur ay doom yu ma topp sallallahu alayhi wa sallam loolu yërmande la wala du yërmande ah est-ce que yërmande ëpp na loolu bàyyi leen yow jibril laa mukk bul toj mukk montagne yi seen kaw bal arju yaakaar naa an yax an yuxrija allahu min aslaabihim man yabudu allaha waxdahu wala yushriku bihi shay maa ngi yaakaar yàlla dina mës a génne ci seeni geño ci seen biir yi man yabudu allaha kuy jaamu yàlla waxdahu yàlla kese wala yushriku bihi shay'an du ko bokkaale fa kaana haza mazharun min mazahiri rahma al muhammadiya al amma nee na bu fekkee yërmande gu mattale gi la bii benn la ci ñooñu ay lan lañ ay yéeféer te terawul yonent bi yërëm na leen moo wuteeg nuux nuux moom bi muy ñaan yàlla lu mu wax waxul yaakaar naa ne ñii buñ ma wedde dafa ne yàlla bul fi bàyyi benn kër laa tazar alal ard min al kaafirina dayyaaran yàlla ne ko lu tax mu ne ko boo leen fi bàyyee innaka intazarhum ñii boo leen fi bàyyee yu dillu ibadak ñii ñëw ci ginnaaw sax ñii dañ leen di réeral wala yonent bi moom dane amaana ñii buñ ma weddee danañ jur ci seeni biir ñoo xam ne danañ jaamu yàlla rek duñ ko bokkaaleeg dara loolu am na wala amul wallahi loolu mujj na am abu jahlin mujj na jur boobu ku ko tontu am am bulughul maram abu jahlin mujj na jur ikrama yow am nga benn bind leen turam mercredi nga ñëw ñu jox la bulughul maram abu jahlin mujj na jur ikrama ikrama koo xam ne danaan toog yonent bi sa yonent bi day toog mu ñëw toog ci mbaggu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam est-ce que kooku keesa la walid ibnu mughira mujj na jur xaalid yow am nga benn buluuxul maraama yow tamit xaalid kan mooy xaalid xaalid ibnul walid xal ay ponkal yéefër waaye ñuy jur ay ay ay ay ponkali saxaaba kon li yonent bi xoon sallallahu alayhi wa sallam yàlla dëggal na ko ne boo leen bàyyee ñii boo leen alagulee ëllëg danañ jur ñoo xam ne danañ jaamu yàlla kese du ñu bokkaale yàlla ak dara mbokk yi Aïcha radiyallahu anha wa ardaha soxna yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa mos a war gëléem gëléem gi lànk bañ a daw bu baax aysa di jëflanteeg jëf gëléem gi jëflante bu yayoowul ak ñu jëflanteeg noonu bàyyi ma yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xool aisha ba ci yàgg mu ne ko aisha alayki bir rifqi ya aisha dafal ndànk yow aisha dafal ndànk yow aisha loolu lan lay wone fa haza mazharun min mazahiri rahma al amma is shamalat bil xaywaan nee na lii day wone ne yërmande la bu mottale la fee lan la yërëmoon ay yéefér fii tey lan la yonent bi yërëm bàyyi ma am na benn xale boo xam ne dafa amoon picc su baayam xëyee nuyu ji yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi nuyanteeg moom ba pare naan ko ana diw mu ne ko mu nga fa mu ne ko naka picc ma indi day nuyu ba nuyu picc mi sallallahu alayhi wa sallam picc mi sallallahu alayhi wa sallam moo tax jullit yi tey bokk na ci li leen manqué mooy ñu xam yonent bi tey ñun fan lañ toll ci yonent bi mooy rey ay nag rek togg ay cere organiser ay tente di yuuxu bu bët set loolu kese yenn saa yi sax tente yooyu nga fekk ci yoo xam ne dafa am ay xiin walla ay sabar walla ay tabala yoo xam ne mi ngi ànd ak fecc goo xam ne laa ilaha da ngay gis nit jóge fa tooy ndax fecc est-ce que dëgg-dëgg ñun nii nuy organiser di gàmm est-ce que yonent bi saa salaam saxaaba yi noonu lañ ko doon defee est-ce que saxaaba yi mos nañ koo def est-ce que ñun ñoo leen gën a bëgg yonent bi ñun ñoo gën a bëgg saxaaba yi yonent bi xam ngeen lii ñuy tuddee gàmmu kañ la xew xam ngeen ko ah xam ngeen ko ku ko wax dina am buluxul maanaam xam ngeen kañ la xew ginnaaw yeneen di bi après ñaataat quatre siècles quatre siècles siècle ñaataat la cent ans benn siècle cent ans quatre siècles gàmmu di doog a xew gis ngeen quatre siècles aka neexoon sax nag sax même buñ ko xawalee ñu jàngale fa yonent bi ba ku fa jógee nga xam kii mooy kan kii lan lañ bëgg ci moom kii lan lañ ko war a toppatoowee kii naka la doon dundee ci biir këram kii naka la nekkee woon ak nit ñi kii mission bi mu indi woon lan la ak a neexoon loolu waaye ndeysaan li ma wax sànq rek ñun suñu dund ci lislaam yëpp mooy lekk rek ku dem ñëwaat boo ko nee mu ne ay bërigo ji moo fa nekkoon bërigo ji yàpp yi damaa lekk rek ba tëdd gaa yi lu bëri loolu lañ lay wax yeneen yàlla yërëm mu ne beneen buy wane yërmande yonent alayhi salaatu wassalaam yonent nee na fii kulli zaatu kabadin rutba ajar képp koo xam ne yëkkati nga sa yërmande jëme ko ci rabu àll ci loolu ñu naan rab yonent bi nee na am nga tiyaaba dégg ngeen ñu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na benn waay dafa mar naan mu wàcc ci teen bi mu tànq naan ba pare mu romb benn xaj bu mar bay mar doj yi di mar xeer yi ak làmmiñam waa ji daal di dellu ci teen bi daal di jël ndox mi daf ko ci dàll maraakis xuf daal di ñëw sottil xaj bi ci gémmiñ gi xaj bi naan waa jooju lan la am tiyaaba yàlla daal di koy fay aljanna xaj la jox mu naan mu dem aljanna kon ku jox jullit mu lekk mu naan foo jëm xoolal yonent boobu ba ci mbindeef yi da leen a yërëmoon loolu day wane mazhar benn feeñuwaay ci yërmande bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ëmbal lépp yemul rek ci nit ñi wala yéeféer yi wala rabu àll yi dégg ngeen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na benn jigéen a ngi nii dugg na safara daxalat imraatun annaar limaza lu tax ndaw si dugg safara fii xirratin xabasatha hatta maatat ci benn muus bu mu yeewu biir këram joxu ko mu lekk bàyyiwu ko mu dem lekk ci dundante fu yàlla yi ba muus bi dee muus mi xiif dee yonent bi ne ndaw soos dafa dem safara xoola ñun tey nu ñuy nu ñuy dundee ak mbindeef yi benn misaal laa leen di jox xool leen fas fas moo gën a metti dund ci Sénégal fas te yonent bi aleyhi salaam dafa fonkoon fas fas yàlla moo ci wàcce saar ci Qur'an ban saar la yow la yow waxoon nga keneen fas wala aadiyaati wala aadiyaati ay fas la saar la ci yàlla wàcc suratul aadiyaat mais xoolal fas yi Sénégal buy taw fas yi fu ñuy fanaan ci ndox mi ci mbedd mi d'accord ngeen walla bu tàngee ba nit ñi génn di dem ci garab yi di jënd glace ak di taal ay ventilateur fas yi fu ñuy nekk ci naaj bi allahu akbar xoolal li ñu leen di sëf xoolal dóor yi ñu leen di dóor suñu leen di dóor fan la leen di dóor dóor ah déedéet loolu kenn mënu ko wax ñu leen di dóor loolu ëpp naa wax fan la la gaa yi di leen caw ba mu dagg loolu est-ce que rafet na lii rabu àll day yëg mettit ndeysaan waa ji dafa gis benn muus bu feebar mu ne yërëm leen ko irhamuha yërëm leen ko day yëg métit comme ni ngeen di yëgee métit te moom munta wax fi koy miit day onk rek munta wax fi koy miiti kon kooku dañ ko war a yërëm waaye da ngay gis ñun bu muus amee doom suñu kër gi nuñ koy def jël sànni ñu mbalit te yonent bi nee na innaha min tawaafiina min ahlikum moom daa bokk ci sa njaboot muus daa bokk ci seen njaboot waaw yonent bi moo ko wax nee na muus ci seen njaboot la bokk ñu dañuy sànni ci doomam yi ndaw si buy am doom fu ñu koy yóbbu pour ñu dimbali ko maternité muus buy am doom kan moo koy dimbali ñaar doom lay am ak ni mu bëree ni mu méttee bu paree ngeen buub doom yi sànni mbal te yonent bi nee na sa njaboot la bokk xanaa boo leen di génne sax bàyyil bañ màgg bokk bañ mën a dem lekkal seen bopp nga génne leen mais moment yooyu muus mi amee doom léegi nga jël doom yi sànni ji léegi doom yooyu ni ñuy def dañuy dee ndeysaan nit ñi yërmande moo jeex ci ñoom yërmande mbokk yi mazahiru rahma alxaasa bu ñëwee ci melokaanu yonent bi yërmande yonent bi ci bi mu jagleel jullit yi yële li mu jagleel adduna bi lépp la moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ñëwee nag léegi ci li mu jagleel jullit yi dee ngeen mu ne lawlaa an ashuqa ala ummati la amartuhum bisiwaaki maa kulli salaat ay waay bu ma bañul woon ngeen sonn su ma bañul woon ngeen sonn dinaa leen digal julli gu ngeen di julli jàpp bu ngeen di jàpp na ngeen soccu la amartukum bis siwaak inda kulli salaa su ma bañul woon ngeen sonn kon dinaa leen wax ne julli gi ngeen di julli na ngeen socc ba pare doog a julli def ñoo yërëm wala yërëmuñ yërmande tax waaye ku am xel dafa war a xam ne kon fu la fekk socc war naa nekk sa poos ndax yonent bi nee na damay bañ ngeen sonn waaye ngëneel la ci moom parce que moom daf ko doon def waaye bëggul jullit ñu sonn wala rek bëggul jullit ñu sonn moo tax santu leen ko ndax bañ ñu sonn kon loolu day wane ne moom dafa yërëm jullit yi ñaareel bi mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na bu ma kenn nettali lu sama benn àndandoo def ba ko kenn nettali laa yambari ahadun minkum an ahad min ashaabi shay'an laa yuballighuni yonent bi nee na laa yuballighuni ahadun minkum an ahadin min ashaabihi shay'an bu ma kenn nettali kenn ci yéen toog fii bu ma nettali lu kenn ci sama àndandoo yi def ñu ne ko lu tax mu ne fa inni uhibbu an axruja ilaykum wa ana salimu sadr damaa bëgg damaa bëgg bis bu may génn ci yéen ma génn dënn bu set bëggumaa génn fekk am na koo xam ne dama koo mere ci yéen wala maa ngi xalaat ci moom dara luñ ma nettali sallallahu alayhi wa sallam wala fii ban kilifa moo gën a baax ci kilifa yi moo naan da ngeen may nettali gars yi li ñuy def su ma demee lu ñu def rek wax ma ko wala benn waay ci société bi muy nettali patron bi li gars yi def moom dañ koy bëgg wala dañ koy patron bi da koy teg ci wetam di ko gàtte muy fen rek xoola yonent bi moom li mu wax saxaaba yi bu ma kenn nettali lu kenn def ñaara ci nekk ndax saa yu ñu la nettalee diw def na dara boo gisee waajoo ji sa xel ci lu muy nekk ah ci lim defa wala buñ leen leen oustaz guddi gu nekk day baali ma dem ñëwaat nag jël sama téere ñëw toog fi naan leen alhamdulilah lu ngeen dox mooy kii bu ñu dimbali waaye si kii man mu ne dimbali nag joo gis fële muy gis nga sa xel day nekk ci loolu chaque jour suñ lay nettali su la waa ji lu mu la mun a wax dootoo dégg loolu yow looy gis mooy lim def rek moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xoola sax lu mu leen wax man satara musliman satarahullah même boo xamalee nit def na lu bon waroo koo wax nettali ci tey nag ay rajo la ñuy yóbbu suñuy problème naan ko te tësëg lu xew tey ak nga gis ku yóbbu jëkkëram nga gis ku yóbbu jabaram nga gis ku yóbbu baayam la ilaha illallah ana sutura ana man satara musliman satarahu llahu fi dunya wal axira ana loolu ah yonent yàlla Moussa bi ko yàlla yónnee yàlla da leen a nattu benn bis maral am tool yépp wow jur gi commencé dee nit ñi commencé xiif Moussa daal di génn ak banu Israël ñu dem ba ci àll bi ñuy ñaan yàlla pour ndox ñëw Moussa ñaan ba sonn ndox mi ñëwul mu ne yàlla lii lan yàlla mu ne ko ñooñu ñooñu toog foofu dafa am ku ma ci tooñ moo tax duma leen may ndox Moussa ne yéen jaami yàlla yi yéen ñii am na koo xam ne moo tax ndox mi wàccu ndax kooku dafa tooñ yàlla rek benn waaye fi mu nekkoon rek mu ne man mii la rek mu tuub fi mu toog mu sellal mu dellu ci yàlla rek ndox mi wàcc Moussa mu ne yàlla lii nag mu ne waa ji tuub na baalu na ma léegi nag Moussa mu ne yow yàlla kan la kan la yàlla mu ne ko ah Moussa moom bi mu ma tooñee dama ko koo nëbb bi mu tuubee naka laa la koy wanee allahu akbar bi mu tuubee bi ma tooñee dama ko nëbboon waxuma ko nit ñi naka laa koy baalee di ko feeñal allahu akbar mbokk yi xool leen yàlla kon est-ce que yàlla du borom sutura ah est-ce que yàlla mënoon wax Moussa borom wax ne bu weex bële la ku gàtt ki wala ku sew kële la Moussa dina ko xam waaye yàlla ne Moussa waaw loolu nu ma la koy nu ma koy defee moom bi ma tooñee dama ko nëbboon bi ma baa bi ma ko baalee naka laa koy feeñalee ndeysaan kon yàlla ku bëri sutura la yàlla ku bëri yërmande la danañ yàlla suturaal yërëm na moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne bu ma kenn nettali lu sama benn àndandoo def ndax fa inni man yonent yàlla muhammad ahabbu an axruja ilaykum dama bëgg bu may génn ci yéen maanaam bu may faatu wa ana salimu sadr bu may dem bu may dem àllaaxira naa yóbbaale dënn bu set dënn boo xam ne du ma ci yóbbaale kenn ndax kenn kuñ la nettali ay ayibam nga yóbbaale ko nga yóbbaale ko ay manqué manqué am kon lii day wane ne yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam ku bëri yërmande la ci fa hadihi rahma wa shafaqa min ashaabihi ridwanullahi alayhim wa hiya min mazahiri rahma alxaas nee na lii ba tey lenn la moom yonent alayhi salatu wasalaam ci yërmande gu mu ëmbaloon ay sahabaam nee na jaa arabiyun yatlubu shay'an fa aataahu benn waaye ñëw na ci jàkk yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ñaan dimbal damaa bëgg ku ma dimbali dama kër ga amuñu lu ñu lekk gëñ nañu ndékki gëñ nañu añ gëñ nañu reer yonent bi daal di yëkkati li nekkoon ci poosam daal di jox waaj mu ne ko li nga may jox bon ba dee yow lii ak fi ma jóge rek saxaaba yi tëb ne dañuy rey waaj waaye yonent ne bàyyi leen ko bu leen ko def dara bàyyi leen ko kañ dem ñu dem kër ga yonent bi génne li nekkoon ci kër gi yëpp jox ko ne ko léegi nag waa léegi macha allah kay ku baax nga jërëjëf waay yow yaa fi gën a baax yonent bi ne ko waa léegi xam nga ni ñuy def yow kontaan nga de mu ne léegi xam nga ni ñuy def mu ne déedéet nañ dem ci jàkka ji xam nga bi ñuy jógee ci jàkka ji da ngaa merloo woon gars yi léegi nañ dem nga kontaan loo leen yonent bi ànd ak waa ji ba ci jàkka ji mu ne seen mbokk mi dey bi mu fi génn dafa meroon lool lool waaye léegi nii ak nii est-ce que kontaan nga mu ne waaw waaw kontaan naa de wax dëgg yàlla aajo aajo bi faju na am na loo xam ne bu ma ko yóbbee njaboot gi am nañ lu ñu lekk ndeysaan gis ngeen yonent bi est-ce que mënul woon noppi gaa yi dóor ko est-ce que suñu kilifa yi fii léegi doolu la ñuy def ku leen tooñ ci seen kanamu njaboot ñu ne duma leen ko aw du ma leen ko fii ku fi kii acca bismillah du ma leen te du mujju fen wala sax ñu ne rey leen ko ñu jël gaa yi rey du mujju fen wala gisu leen loolu du jeex ci dëkk bi te loolu gis ngeen kilifa keneen ki daa ñëw ci jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàkk ji gën ci jàkka yi jàkka ji nga xam ne moom dong moo dagana tukki dem ziyaara ji ko waaye ñoo ba ci jàkka jooju génne waaye yàllaam taxaw di saw ndeysaan bu wenn waaye ñëwoon seen jàkka ji saw ci nu ngeen koy def ngeen koy duma de ah bu wenn waaye demoon ba Tuubaa saw ci jàkka ji nag koy rey ku demoon ba ba Tiwaawoon bisub tey bii nga saw ci jàkka ji ñu lay def ñu lay rey pourtant nit saw na ci jàkka ju gën ñetti jàkka yooyu te kenn rey ko waaye ñëw fekk ñëpp toog mu taxaw ci ruq bi di saw saxaaba yi tëb yonent bi ne bàyyi leen jàmbur bàyyi leen jàmbur de gis nga saxaaba yi ni ñu déggale woon yonent bi ñëpp dem toogaat seen place waa ji taxaw di saw cur waaw di leen xool leen buqi ay bëjëm saw ba saw yi jeex yonent bi ne sotti leen ci saw waa ji benn baagu ndox ñu jël baag bi sotti ko ci waa ji yenent bi woo ko mu ñëw yenentu ne ko fii kenn du fi saw place yi place yu ñuy jaamoo yàlla la mu ne allahumma arhamni warham muhammada wala tarham maana ahad yow yàlla yal nag ma yërëm man ak yenent bi keneen sama yónniku ci yonent bi ne ko dayyata alwasiata xatal nga lu yaatu xatal nga lu yaatu mu ne yonent bi lan moo yaatu mu ne ko yërmande yàlla dafa yaatu bi ko ñii say mbokk lañ dugal leen ci dugal leen ci boroom xam-xam yi ñu ne yonent bi musal na ci waa ji ñetti mbir njëkk bi musal na ko ci safara ñett musal na ko ci feebar ñeent saw yi tasaaroowul ci jàkka ji waa jooju saw ci jàkka ji bu doon saw gaa yi di ko dóor ba mu dee fu mu jëm waa ji xas yonent bi sànq saxaaba yi di dóor xam nga yonent bi lu mu wax saxaaba yi def leen ndànk gis ngeen kii bu ngeen ko dóoroon sànq mu dee rek safara la jëm xam nga ku xas yonent bi ñu dóor la nga dee waaye xoolal yonent bi ñaar ñii ñëpp yonent bi musal na leen ci ci safara moo tax mu ne ko wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yonent bi jaar na ci yoon di dem ñu ne ko yonent bi yoon bi baaxul de mu ne lu fi nekk ñu ne ko ay agresseur mu ne ilayhima ursiltu ci ñoom ñaar la ma yàlla yónni ñoom ñaar ñooñu agresseur yooyu ci ñoom ñaar la ma yàlla yónni pour ma génne leen ci agression nan la def ba mu jaaree ci yoon bi ñaar ñu ne tëll ak seen jaas yi yonent bi waar leen ñaar ñooñu daal di tuub ndeysaan daal di koy topp mujj nekk ay saxaabaam sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi yërmande yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam foo ko takk wees na ko benn waaye ñëw na fekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci sëb keppaaru garab muy nelaw mu ñëw ne ko man yamnauka minni ku la mën a musal tey gedd jaas ji yonent bi ne ko yàlla waa ji tiit jaas ji wadd yonent bi jël jaas ji ne ko yow nag man yamnauka minni mu ne jéggal ma rek jéggal ma rek ku la mën a musal mu ne jéggal ma dina ko demal mu dem këram woo ay mbokkam bañ ñëw mu ne ki gën ci nit ñi laa dajal tey buub njaboot gi yëpp indil yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax yàlla bi muy tàgg yonent bi ci alquran lan la ko wax fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta fazzan galiza alqalb lan faddu min hawlik allahu akbar ci yërmande yàlla yërmande gu la yàlla bindal moo ñaale ko ci nga dajale gaay yi cent vingt quatre mille personnes góor ak jigéen ñoom ñëpp su yonent bi ne jóg leen ñu jóg su ne toog leen ñu toog su ne taxaw leen ñu taxaw bu ne noppi leen ñu noppi ñoom ñëpp jàngeen yonent bi alayhi salaatu salaam julli na jublu masjidil aqsa julli tisbaar mu def ñaari ràkk ñeen ñetteelu ràkk ba ñeenteel bi mu tourné jublu masjidul haram saxaaba yëpp tourné dafa tourné rek gaa yëpp tourné boo demee jàkka ji nii lañ ko def fa am xibla nii am xibla nii ñu ne la xibla bi mooy bu njëkk bi jublu masjid aqsa bii mooy jublu makkatal mukarram masjidu xibla tay nii lañ ko tuddee masjidu xibla tay nii jàkka ju am ñaari xibla yonent bi ne saxaaba yi waaw yéen lan moo tax ngeen tourné gars yi ne ko yaa tourné ñu tourné taxawuñ fa naan waaw kii ah xaar ba mu pare ñu laaj ko bu doon fii ñun tey dañ naan waaw mais yow ma dalilu ko ala ma faalta beneen bi dafa julli simi ay dàllam ñëpp simi dàll yi mu pare gis dàll yi ni ñuy rangee comme ñun suñu julli vendredi dàll yi ni ñuy rangee noonu suñu kanam mu ne gars yi waaw lu tax ngeen simi seen dàll gars yi ne ko yaa simi ñu simi mu ne man sama dàll jibril moom ne dafa am sobe gis ngeen ndax nit ñu meloon ci moom sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi lii lenn la fa haza akbar mazhar min mazahiri rahma al muhammadi al xaasa wal amma nee na lii lenn la ci yi rëy yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ëmbal na ko xeet wi yépp ci yërmande gu mat gu mu matale ñëpp ak yërmande goo xam ne daf ko jagleel jullit yi kese kese kese kese kese kon dina yell ci ñun jullit yi tey fii nu toll ñu góor góorlu di dund melokaanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci bépp melokaan boo xam ne allahu subhanahu wa taala def na ko ci yonent bi su yàlla ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana dëgg-dëgg yenent bii royukaay la ci yéen su yàlla waxee loolu mais nekkul rek ñu naan sallallahu alayhi wa sallam loxo ci kaw bàkkaar ci suuf gaa yi fetta su joxe xaalis ñu jóor dugal suñu poos dem non déedéet wala yendoo way fanaanee way guddi ah eh, njool màkka di yuuxu rek déedéet yonent bi tuuti na ci loolu bal sax loolu dafa yellul ci ay mbiram di fecc fanaanee fecc guddi yi organiser ko ay fecc po caaxaan wala ay tukki yoo xamante ne lépp caaxaan la du diine yonent bi alayhi salaatu wasalaam ëpp na loolu ku tol ne yàlla du indi benn waay ni ku bëgg a baax toppal kii kii mooy modèle toppandoo leen ko modèle la modèle leen di wan loolu mooy nee naa leen sànq yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaata nit la yar ñaata wax leen ma ci kenn ku ku yaruwul wax leen ma ci kenn ku baaxul góor ak jigéen ma leen ñëpp a jub ñëpp ñi yonent bi defen même xadis bi ñuy wax ñenn ñi naan xadis bi wérul mu ne ashaabi kan nujum kulla maqtadaytum ihtadaytum sama sahaaba dañoo mel ni biddiw ku ngeen ci topp jub jël leen kenn rek kenn ku nekk fii ñu toog jëlal kenn nga toppandoo ko kenn ku nekk fi nga toog jëlal kenn boo ko toppandoo rek jub parce que dañ koo defar ba mu baax kon loolu moo doon darsu tey insha allah ñu daggoon darsi yëpp arrêté ko pour fàttali lenn ci yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ñu ñaan buur yàlla tabaraka wa taala mu def si ñun dégg ak topp assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh